aca deuxième round baa ngi noonu ndeysaan deuxième round ba baa ngi noonu diggante Dip Boyar ak Rogo Yathia Simal bi Rogo Yathia bu Simal bi ak Dip Boyar waaw waaw fii ci Fimela fii ci Fimela से यह जनता की हुआ जल Rogoya jadi boyar ko babi metti na Rogoya jadi la tagbe Rogoya jadi dan nako wala lu xew waxal mu leer arbitre waxal mu leer ku daan eh, arbitre nee na boro leen combat bi leerul cey waay di boyar jëlaat na ko di boyar jëlaat na ko ndeysaan di boyar daan na rokoya jawaay ey eh, doole doxul jam